amoo doom ay na ci lool soxna na figgéey rab def laa sonal soxna na fi li mu mën ci wàllu faj bu ma ko doon lim fii la ñuy fanaan yow woo ko ci numéro téléphone bi bu la seetalee nag nga dégg daali di 77 an 61 07 mën nga ko woo appel normal mën nga ko woo appel whatsapp. Euh, saison bi ren dégg nga nga xam ne fin saison lañ toll mais ténor yi ñuy wax naan ñooy les VIP bi ñu génn. dal ci kaw gi nga xam ne mooy mooy waa CNG yow en tant que ancien lutteur la nga gisee loolu. waa benn instant. dafay positif beneen instant tamit day négatif. Hmm, comme nan pourquoi day négatif. mooy ñoom lutteurs yi. bi tànn jotee. ñoom ñoo war a tànn. ñoo leen tànn leen ñoom ñu tànn Bira Sène. lan mbëri ñoo tànn Bira Sène. ñoom ñoo tànn Bira Sène. donc yow boo fekkee ki nga xamante ne moom nee nañ ci football la doon la doon nekk amateur di suivre foofu noonu. Hmm. yow yaa ko wax. Hmm. léegi nga jël ko tànn ko nen na la jiite waaw donc bu la jiitee kay da nangu da nga koy nangu loolu ndax yow yaa ko jox yar bi ne ma bu ma defee nu ko dul noonu dóor ma bu la dóoree waroo jooy donc bu fekkente ne da ko yóbbu léegi ci côté positif. mooy bi tànn jotee. Mm-hmm. Yékini ngi fi. Mm-hmm. Bombardier ngi fi. Mm-hmm. Tyson a ngi fi. Boy Kayré ngi fi. Tafa Gueye ngi fi. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. waaw ñooñu xam nañu réglement te bu dul dara am nañ yërmande ci mbër yi te bu dara am nañu gëdd ak sañ-sañ yi ñëw taxaw maanaam am nañu poigne bi ñëw taxaw ne même bu bokk la booy bi écrit mu ñëw xool dirigeant bi wala entraîneur am ne eh, waxal sa booy bi heure sëgg ci géew gi jot na bu sëggul buñ ko daggee bu leen wax est-ce que yaa ngi dégg boobu y a pas mais tey comme li gars yi doon souligner keroog bien vrai que ne ils ont raison am nañu raison mais raison bi bañ ko waree kaas ak fañ ko kaasee nañ ko kaasee moo baaxul man man man foofu laa gisee quoi parce que kenn ku nekk tamit da nga sa point de vue parce que tey bu fekkente ne bu fekkente ne mbër mi dafa ñëw tëb miir bi ñu dagg ko un million je crois Balla Gaye Tapha Tine mu ne moom benn son tëb miir bi mbër yàgg na ko def waa Fass yàgg nañ ko def te mosuñu leen dagg Tapha Gaye da ci dem boole sa àndaale échelle te mosu ko dagg déedéet la moo tax kon ñu dagg Balla Gaye waaw foofu foofu laay waxee ne bu fekkente ne moom dafa tëb mur bi mhm. ñu jël million am mhm. Tapha mu ne benn bougie la taal mhm. ñu dagg xaw ma un million deux cent cinquante mill xaw ma. waa léegi tafaatin bu taaloon euh, benn benn keesu sondeel kon xanaa kon day amel CNG xaalis. ah kon donc il faut ñu defaraat affaire bi. Ama Baldé nee na si carrière am bu xalaatee dëgg. CNG dagg na ko gàtt gàtt war a tolloo soixante quinze millions. waaw dégg naa ko. Mhm. dégg naa ko waaw mais c'est que c'est que du benn du benn du benn coup pof. déedéet mhm. maanaam dafa dafa estimer moom bi mu duggee ci làmb. ba bi muy bëree Gris Bordeaux liñ ko dagg yëpp boo ko estimé effectivement mën na ko sax ëpp si mën na ko sax ëpp parce que léegi-léegi je crois daaw ou bien daawati géej mbër dem na ñu dagg ko sax ba ne sa combat bii di ñëw yaa ñu deseel xaalis dagg nañu mbër CNG ba ne ko sa combat bii di ñëw yaa ñu amel mais lamb aar la bu fekkee dañoo bëgg a rey li nga xam ne mooy aar est-ce que lamb ji du mujj suux bien sûr parce que lu ne dafa am lu mu baaxoo mhm. du làmb kese de. boo ñëwee ci nawetaan sax. jour yi balaa ñuy dugg nga gis léegi léeg ñu def benn tour de terrain xaw a def benn échauffement. réveil public bi. yooyu yëpp daf bokk ci aar charme charme charme sport ko mais en dehors de violence nag laay wax. en dehors de violence. donc bu fekkente ne mbër bi dafa war a ñëw. sotteeku ñaari butéel. taw tàllal sengoor bi fii. jël béjjën bi jam ci suuf. tàllal sengoor bi. léegi yow boo éliminer yooyu noonu yëpp. gars yi bu ñëwee la la ñuy seetaan. mbër bu baax ku dugg ci géew gi daw ñëw bëre daan wala mu daanu ñibbi. nee na léegi boo dugg ci biir géew nga ba tey loolu man je suis d' accord. d' naa ci loolu. wala sax benn. Hmm. waaw. lépp nga sangoo ko sa cumbukaay lépp nga sangoo ko sa cumbukaay. loolu d' parce que parce que tamit benn instant. Hmm. nit duñ la may lépp nga jël lépp. te parfois sunu mbokku mbër yi. Hmm. wala booy yi sax daf ci am ñoo xam dañuy exagéré ci loolu. parce que euh, Papa Alioune bi mu fi nekkee. demoon na ba éliminer butéel 10 litres. nga dégg ay non ñu ñoo koy root suñu kër ñu ñooy fay suñu facture ndox lu nekk ñu wax ko bi mu demee kii ñëw delloo si leen loolu ak clémence pour peut-être xëy ñu ñu xaw a soulagé ak yooyu noonu mais léegi nga bëgg a yow dix litres nga andi ci dix muy cent cent litres nga war ko sangoo mais il faut que lamb ji day dem ba vingt deux heures wala vingt trois heures gars yi war a génn war a ñibbi si sécurité. ba ci démb Ndiaye am na benn mbër bu ñu sanctionné ci loolu sangu gàllank. waaw Ada Fass. d'accord nga ci bu baax ndomte la nag moom laa faral mais d'accord naa ci parce que Ada Fass pour mbande warul mun a entraîner entraîner bu doy ñëpp naan waajee ko mën waajee ko pour doole waaje bu ko jàppee bu ko jàppee nga gisaat trois semaines wala deux semaines avant Ada Fass dem Île des Serpents taxaw fa sumee ko def yaramu neen nga xool ko physiquement da ngay xam ne kii moo mën guy gi parce que doole xale donc bu tekkente ne encadrement baax nañ bu ñëwee ñu xool état bi guy gi andi dañ ko war a wax ne ko dencal butéel yi pour sa beneen combat nga dem dugg daan kii ñu ñibbi. bu doon ko def di nga bien sûr. man man dem naa ba biir làmb taxaw arbitre di waaj sëfle ñu ne ma booy amuñu paas bu ñuy ñibbee man leen ñaan leen yàlla ma jàpp waaji su ma ko jàppee làmb jeex. Hmm? te xanaa xanaa loolu moom moom moo ëpp dépression xaw ma pression mbër bu summeeku taxaw nga xam ne ki yorul état mbër bu yorul état ja jarul sotteeku ñëwal jàpp ko daan ko c'est tout da koy jàpp daan ko ñibbi. ama ama bale arafas ñor na wala ñor. non des na. lu des na parce que pour man. aada war na mën a jëlaat ku mel ni Koñc sax wala ku mel ni Jackson. soog a soog soog a yëg. ba tey loolu du si dara. loolu du si dara Modou bi muy jël roi des arènes ci defeet la jógee. am déet bëri na mbër bu jógee ci défaite dem dem dem defaat yeneen performance loolu dara ci làmb. waaw waaw parce que tamit nag du neexu ñi du neexu ñebe kenn de. Hmm? Oh, non c'est pas Aliou Seye daf ko daan rek dafa nekk cuune de non non non Quench. Hmm. imagine mu commencé bëreeg léegi bii mooy deuxième défaite am. <laughs> <laughs> waaw kon kay kooku du cuune hmm. du cuune de man su ma doon Ada war naa ko mën a jël. parce que combat bu jaadu la combat bu jaadu la parce que Quench bu daan papi général. daan Lac Rose. war na mën a tenir kii Ada Fass normalement ndomtel ne sax moo ko mag mais mën na ko tenir. Ada Fass Ada Fass consulat mooy waaw kooku lamb la. waaw boobu tamit combat la. mais man su ma doon Gris je préfère ma jël Doudou Sané. ma jël Doudou Sané. waaw. kon kon Coriace kan lay bëreel. non Coriace moom ci logique gu lamb. waaw dafa war a non par force la loolu amul ay nanguwuñ. non koo wax scoriace mu wax ko ci télé bi mais bu ñu nee ñaari fan nga seet ko jox avance mu ne la baax na. waaw mais Lac de bu nuyulee ak Siteu. waaw. génn tout récemment amul problème xaw ma problème adversaire la am pa ce pas. waaw nga fi toog. adversaire la taay la. Lac de Guiers adversaire la. coriace fu mu jaar Lac de fi mu jaar ay moromam. Lac de Guiers kenn mosu daan de. <laughs> Eumeu daan na ko. déedéet daa tax suuf na nañ. waaye dafa jàpp tànk bi mbiij ko mu tëdd. fii la ñu fekk yàggul. ku bañ a daanu doo bëree bëre ak daanu ñoo ànd lak Serigne Dia ce que am na mental bu war a mën a bëre ki nga xam ne mooy la dëggee dëgg. bien sûr ak moom Serigne bu taxawee laaj Ama ne Ama ñëw. Mhm. kon kay jaaru na mu bëre mu bëre Lac de Guiers c'est c'est pour man. est-ce que Lac de Guiers dana wàcc jël Serigne Ndiaye jël Siteu warul mun a bañ Serigne Ndiaye bu nekkee adversaire de taille rek lay mhm. fu mu bëreeg Siteu war na mën a bëreeg Coriace ci logique. Jules sant nañ la gërëm la tey boo jeexal lii loo koy jeexale waaw di ñaanalaat sama booy écurie yi Soumbédioune di la ñaanal yàlla defal leen jàmm ñoom ñëpp ku ci am blessure ku mel ni bébé Diène yàlla saafaral ko tegaat ko ci yoon bi may ko ndam ci combat bi mu jëm. non man gën nañ gisante nag wax dëgg neex yàlla. mais bi ma bi ma koy mujjee gis tamit nag moom mu ngoon ci état bu doy waar mais. non non non non non gars yi dañuy wax nii rek. gaa yi lay wax ni yëpp kenn du kenn du wax ne maa gis koo ko laaj danaan la dañ ma ko wax nga dem ci keneen mu ne dañ ma ko wax nga demaat ci ko mais kenn du man gis naa ko kon donc loolu c'est pas fondé am déet bi ñaanal tamit mbañik ci li mu jógee Maguette Seck dàqu ko bëre mais erreur de jeunesse moo ko dal ndax mënoon na génn saa koy defarwaat mais jom du bari wóolu entraînement am waaw looloo ko daan mais nag yoon bi des na lu bari ndax xale la xale la di ko ñaanal moom tamit. yàlla na ko euh, no mais euh, jëkkëru Ndeye Gueye bee ngi fi ba papa booy jinne ngi fi ba léegi ñaata defet la tegle te teewul du découragé muy muy muy muy ku ma naw. waaw combat la combat hmm. muy ku ma naw mais bu ma sañoon man euh, mbañik du bëreeg booy bi hmm. parce que mbañik sama booy la. te man papa booy jinne dama ko bëgg trop. mais mu ci làmb ji te teggeegul làmb. waaw non man man bu ma doon sama sago. waaw dinañu bëre. Mhm. mais damay ñaan yàlla. moo mën. Mhm. muy euh, papa booy jinne mhm. su amaatee combat yàlla may ko ndam. loolu man maa ko ñaan waaw budul sama waa écrit su boobaa mu tombeek mbañik tamit am benn combat daan yàlla boole leen ñu bëre. xam ne ñoom ñaar ku ne ku si nekk day toog ci victoire bu boobaa bëgg naa ñu daje. waaw may gërëmaat sama waa atelier di gërëm waa Médina di ñaanal képp ku fiy mbër muy bébé Diène muy Diène Kayré muy jaasi pël muy Finde caatu Kayré mbañit euh, nu mu tuddati Ibu Afia ak euh, sama booy caatu Médina Coriace. ñoom ñëpp bàyyiw ma kenn su ma limee rek damay juum képp kuy mbër nekk Médina maa lay ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm di ñaanal tamit Gris Bordeaux ak Tapha seen prochain combat yàlla na leen yàlla defal ndam mu nekk ndamu Médina yëpp ndax ñoom ñoo perte flambeau bi actuellement di ñaan yàlla Médina tamit yàlla def fi jàmm waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. jërëjëf gars yi mi ngi noonu Jules Lô moom la ñu ñëwoon seet si doon waxtaan moom ci làmb avec la cœur ouvert nga gis ko moom ni mu waxee bokk ci ikiri nag wax ci ikiri bi wax na ci làmb ji wax na ci combat yi nga xam ne mooy combat yu war a taxaw wax na tamit ci li nga xam ne muy ëllëgu mbëru si mujj mi mooy li mu leen wax rek affaire bi amul secret mooy li may wax chaque jour mbër day contact mbër bu bëggee nekk champion day contact Saliou fa laay tëjee mbër bu bëggee nekk champion day contact te ñi may wax xam nañ seen bopp dem leen ngeen tax ngeen bi ngeen bàyyi saali bàyyi dini te dem bëri ji wasalaam jërëjëf.